mbokki internet yi comme nañu leen ko annoncé woon ce matin ci Dakar Média ki di Yaawa Rasoul nag dañu koy daal di jël comme soxna wala takk nañu ko sax niki tey ci jeudi bi la ñu ko daal di amal foofee ca Tëngéej ñu ngi koy félicité ñu daal di gis ne nag nekk na ab mariage ba nga xam ne yenn ci ay média daal di nañuy dem wuy ji ko ab doole li nga xam ne nag daal di nañu koy fësal moo nekk ne moom mi di Yaawa Rasoul daal di nañu koy jébbal ay millions comme première cadeau benn auto Mercedes ak aussi ay parure en or lim exact bi nag kenn ku ci mais daal gis nañu ne nekk na la nga xam ne mu ngi lëmbee internet bi lool bii lay information gis nañu aussi ne kii di pab bay mel na ne daal dina koy confirmer ca snap kii di Biggi d'autant plus que ni ki démb aussi ci réseau social bi de Snapchat euh, gis nañu ne ki nga xam ne moom mooy wuyoo ci turu ma jigéen nekk xaritam defoon na ay vidéo gannaaw ba mu demee daal di koy yóbbul ay teranga ngir ne ñoom ñaar seen ab xaritoo nekk na la nga xam ne yàgg na lool te rafet na te kii di yaa awa teranga dong la ko ci mësoon ba tax ci bësam bi mu daal di koy taxawoo noonee delloo ko li ni nga xam ne daf ko ko lebaloon encore une fois félicitations